ñëw fii si Touba Ndorong gannaaw ba nu tàmbalee sunu marche jàmm ak xéewal doore ko si Poroxaan dem dëkk yu bëri Touba Ndorong dafa am lu mu représenté si d'abord si PDS mais aussi si président Abdoulaye Wade am lu mu représenté si ñun parce que ñun ñëpp ay taalibe la ñu sëriñ bi li tax ñu yëkkati sunuy tànk ni danoo laaj réew mi du dara lu dul bëgg liggéeyal réew mi ba nu seetloo ni bari na ay xajam-xajam tey danaa waxtaane ponk éducation su ma ñëwee ba Kaolack ñu dig leen université université ba fi nu toll ubbiwul amunu xalaatu ñu fi nekk jël njàng mi fexe ba dëppale ko ak li entreprise bi soxla ba képp koo xam ne di ndaw nga am nga diplôme soo génnee war man liggéey li gën a doy waar mooy njàng mi soo seetee quatre-vingts pour cent yëpp ay filières littéraires lañu te réew nag li koy jëmale kanam ba ëllëg mu man faj ay bëgg-bëggam bañ ko jéggaani fenn il faut mu man dugg si li ñu tudd innovation technologique jaaduwul sax Sénégal ñu war man sunoo jënd kudd kudd gu noo lekke wala fourchette ñu koy jënd Chine wala di ko jëndi feneen loolu bëgg naa si def lu bari d'abord dana fexe généraliser bourse bi ak aide bi ba pare nag may fexe képp koo xam ne am nga diplôme te diplôme ba mënul tax nga am liggéey ma jàppale la nga boole si formation état bi nu bëgg-bëgg yóbbu njàng mi mooy ñu dem ba nga xam ni njàng mi day ànd ak bëgg-bëgg jamono ci waaye nag Sénégal dañu néewal doole privé sénégalais bi moo tax man sama xam-xam ak sama bëgg-bëgg mooy fexe ëllëg marché bu si am solo Sénégal dugal si loxoom rawatina nag ñi nga xam ni dañu am fii seeni entreprise ndaw ñi gis naa ni amuñu liggéey mooy problème mu Kaolack mooy problème mu Sénégal loolu nag ñaari tontu laa si am ndaw ñi il faut ñu nangu jàng métier. maa ngi jóge léegi daara soxna jaara sa poroxaan gis ni ñi ngi jàng di jàng métier kon dama bëgg daara yépp mu dugal fa jàng métier ñi nga xam ni dem nañu ba am ay diplôme te mënuñu am liggéey boole si formation lu gouvernement Sénégal mas def benn si formation bëgg naa si def lu mu tuuti tuuti fukk looloo tax ma ni éducation bi la xewoon danaa jël quarante pour cent si budget national delloo ko éducation bi pour que xale yi ñu mën jàng métier ñu mën leen former ba ëllëg ñu mën am liggéey jigéen ñi aussi koo wax ay financement ay wecc lañ leen di séddale weccit woowu mënul dara lu dul ku nekk nga am as tuut boo jàpp te doo si jug mukk da ngay daw daw rek di dang dangi te doo si jële dara nañ leen wutal ay projet yu mag projet de société boobu mi ngi tudd jàmm ak xéewal Sénégal lu mu bëri bëri xéewal te nu jàmm kenn du jëriñoo xéewal jàmm nag baloo mën am mooy ku nekk jëfe yoon jaay doole bi moo war jug si réew mi maa ngi wax rek ni ñi nga xam dañu yaakaar ni jaay doole mooy solution nanu dem bëri ci jaay doole sa làmb ji rek mais nguur moom kenn du ko yore wala kenn du ko bëgg si jaay doole jàmm jooju il faut que ñu jiital si ay valeur valeur yi nga xam ni Sénégal moom la ñu xam ngor jom kersa sutura waaye nag aussi nangu def li nga xam ni maam Cheikh Ibra wax na ko ñëpp gëm ko mooy ñàkk jariñu il faut ñu nangu liggéey jàmm pour mu am il faut justice am te justice bi gis ngeen ni mu mel Sénégal kenn gëmatul justice damay jox magistrat yi seen cër ba mat sëkk ñu àtte seen aqulay taala liggéey ak ay valeur mooy lu bees li may doxal fexe ba sénégalais bi ne gis seen bopp si li nga xam ni yàlla moo ko xéewale Sénégal waaye nag am na loo xam ni il faut moo waxaat si ñu tàmbalee campagne bi nekk na loo xam ni rafetul te nag maa ngi wax sénégalais yi képp koo xam ni dafa jël bëgg jël réew mi di jaay doole di jël ay xaleel di leen armé ñoo attaqué nit ñi di euh, bëggunu kenn ko xam ni dana mën yëkkati baatam ñu bëgg defe ni réew mi ñoo ko moom bay wax titre foncier di wax fii sama titre foncier la wax dëgg yàlla ko ko xamul cër bi ko askan wi jox jot ñu arrêté violence bi gaañante bi ba ay nit seen bakkan di si loolu jaadul ku bëgg réew mi ni nii lay bëgg réew mi yéen sénégalais yi war ngeen am fulla xam ni kii bëggul réew mi boppam la bëgg li may doxal mooy jàmm ak xéewal waaye nag jàmm ji du benn yoon ñàkk fula de barke dem ba nu fekkee sëy yu ñuy def suñu miti ni ñëw dinu attaqué a ah, xale yi wan nañ leen seen bopp ñu daw fekkat waaw ñu daw ba kenn gisatu leen yooyu lañu war bàyyi. Madické Niang président. moom la ñu wax 2019 moom la ñu wax.